asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan Dakar Media TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu wér a wér a wér man jaw seen xarit seen doomu ndey maa ñëwati seet si kii nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Seye ñu naan ko boroom kurus gi man turbee màgg turbee sell la sama xarit sama waay sëñ bi maa ngi lay nuyu di la waa jaw maa ngi lay fay te di la jox sa wàccuwaay yow tamit di nuyu gaay yëpp ñi siifur ñëpp. Euh, di leen wax ñu ngi leen di nuyu te di leen fay di siyaare ñëpp di nuyu ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew di la wax euh, bismillah sëriñ bi li xew Tuubaa mënul am te du ma la si interpeller laaj la mhm. li xew si sa dëkk bu sell bi rëy na mhm. mu di Tuubaa waaw tëddal ab xale téye paaka daas teg rek rendi allah akbar si mbirum lan la sacrifice yi élection yi moo ko moo ni toll wala la lan la lan lan xam nga jaw loolu dafa garaaw parce que yow maanaam jël xale bu ndaw mm-hmm. dugal ko ci tabax tër ko di ko rendi mm-hmm. Mm-hmm. bisu ajuma xam nga loolu lu garaaw a garaaw a garaaw la loo xam ne maanaam ki koy def sax moom xamul li muy def parce que xam naa ne moom ci jëmmam moom mën na bañ a nekk sax koy def waaye ki koy def loo ki koy def moom xam naa dañuy jël alal rek fay ko pour que mu def ko peut-être ah! ñu soxla cër wala nangam mais bu caagi ne nit ki koy def xëy na ñi cëpp dangay gis jaw ñi cëpp ñuy def loolu dañ leen koy def loo mooy ñi nga xam ne dañ leen di fay rek ne leen defal leen ma nangam pour ñu def waaw li ngay wax ni dafa garaaw foofu dinaa fi ñëw mais boo xoolee ci Touba mm. tey li fi am nga xam ne maanaam dafa am koo xam ne dafa doon jël benn xale di ko tër pour rendi ko mm. la taa mu koy rendi ba mu àgg far am nit yu ko gis tey daanaka boo xoolee vidéo yi sax daanaka xaw nañ koo gaañ ba nga xamee ne daanaka di mi ngi diggante dund ak dee mais loolu moom foofu li may wax mooy foofu du affaire parce que avant ñoo xamee ne bu ñu defee dara ba mu échec rek après dinañ jéem a lay ak leneen am na ñoo xam dañ naan ñii wéruñu wala ñii dañoo dof wala ñii dañoo am décédé wala dañ naan teyu ma ko sax ba mu koy def teyu ko alors que pour que dindi ci xel nit ñi ni ñoom bañ koy def tey ñoo te alors que bañ koy def ñoom ñoo ko tey te dafa amoon lu tax ñu koy def parce que dañ leen a sacrifié loo euh, parce que dañ leen reyal ma xale bi wala defal ma lii pour que indil ma deret ji wala daggal ma baaraam bi indil ma boo ñëwee ma jox la temps ko defee mu échec dañuy wax ne man ba ma koy def tey ma ko wala léeg lii moo koy def alors que pour défier xelu nit ñi alors bañ koy def loolu taxul woon parce que dañ ko doon def pour sacrifice nit moo leen laaj ne leen nangam laa soxla boo ma ko indee ma jox la temps pour ñu def ko te am na ñoo xam ne alal jaral na leen lu ne pour ñu def ko lii moo waral loolu la nekk ca Touba loolu man Cheikh Amadou Bamba Seye maa ko wax loolu sacrifice bu bon a bon la sax boo xamee ne ñi ko doon def ka ko doon def dañ koo yónnee pour pour mu loo ko pour defloo ko dañ koo fay pour def loo ko. bisu àjjuma la surtout bisu àjjuma nga xam ne àjjuma moo gën ci bis yi. surtout sax dafa am heure yoo xam ne ak waxtu yoo xam ne ñoom dañ leen koy defloo nga xam dañ naan la heure waxtu bi tisbaar wala ginnaaw tisbaar wala ginnaaw takkusaan wala ginnaaw timis. Mhm. parce que heure yooyu yëpp dafa am lu muy suyee ci bis bi moo tax. dafa am xeetu sacrifice yoo xam ne sans départ ci sacrifice bi li muy laaj ak nit ki ndaka la war defee sacrifice boobu yooyu yëpp dafay am ci mbir bi parce que sëriñ ya leen di sacrifier loo dañ ne naan bisu àjjuma Touba lañ ko war defee wala dakaar wala Nangam wala fii ak fii yooyu yëpp da ciy am solo ba nga xam ne ci wàllu sacrifice yooyu faaw ñu xam heure bi ko war a def parce que bu ñu ko defee nañ ko war defee rek la loolu du am important moo tax kenn ka def loolu Touba dañ koy yónnee pour mu rey xale bi parce que loolu wàllu sacrifice yoo xam ne maanaam sacrifice yu bona bonal surtout ci waxtu àjjuma bi ak ci bisu bisu àjjuma bi ak waxtu julli àjjuma bi moo tax c'est kooku moom dañ ko yónnee pour mu def ko loolu man Cheikh Ahmadou Bamba Seye maa ko wax beneen bi ci topp mooy ki nga xamee ne fii ci Seras ki nga xamee ne na dafa tër beneen xaritam ray ko xam nga loolu tamit dafa garaaw foofu it dinaa fa ñëw tuuti loolu moom mën na bañ a nekk sacrifice parce que nit dañ naan la boo meree waroo jékki-jékki rek réagir parce nit bu meree ci sensé warut réagir parce que bu réagiree après dina def loo xam ne la koy rëcc parce que bari na ñoo xam ne bu ñu meree rek mën nañoo def loo xam ne dafay ëpp parce que da ngay gis ñoo xam ne ay xaritu benn bakkan la doon xuloo ci lu ndaw rek ci 100 francs wala 200 wala 1000 francs wala ndaw mm-hmm. après ñu rayante mm-hmm. moo ci sensé wërta a mm-hmm. ci a garaaw mën na ci na koo réccu moo tax nit ki saay su meree rek war na ànd ak xelam ba giif loolu moom important foofu nag côté boobu laa fay joxe am na ñoo xamee ne nag xëy na dañuy soxorante wala dañuy ñaanante wala dañoo tëkkonte woon lu yàgg yàgg yoo xamee ne xëy na bés dina ñëw am ci koo xamee ne tëkkonte ba mu tëkkonte moo tax mu def loolu moo tax bari na ci côté boobu tamit wàllu rab wàllu jinne dafay solo nit ki ci côté boobu daf cay am parce que nit ki jinne daf koy solo ba nga xam ne daf koy sa sagoom ca jamono ba muy def loolu alors que ba mu paree di ko rëcc fekk ne ba mu koy def dafa am lu ko solo woon def loo ko loolu tamit dafay am loolu lu am la parce que jinne seytaane lépp lu mën a def rek pour yàqal nit ki wala pour gàllankoor nit ki wala pour pour pour pour pour maanaam pour pour euh, euh, indil nit ki jafe-jafe rek daf koy def maanaam lépp lu bon loo xamee ne maanaam buñ ko defee rek loolu lu bon gis nañ lii lu bon la rek luy gàllankoo nit ki la rek jinne seytaane bi mën na solu ci nit ki defloo ko te alors que jamono ba ko nit ki def dañoo jàpp ne nit ki moom moo ko tey moo ko def waaye fekk na ba mu koy def moom sax ba mu koy def teyu ko waaye dafa am lu ko sol woon loo xam ne moo koy moo koy def mi ngi mel nit ki parfois muy wax di wax da xam ne nit ki bu fekkoon ne ànd naag sagoom lii du ko wax mais dafa am jamono jooju lu nekk ci moom loo xamee ne moo dugg ci làmmiñam di ko wax loo wala moo nekk ci loxoom di ko defloo loo wala moo nekk ci xolam di ko bax baxloo ba nga xamee ne nit ki jamono ba muy def loolu du ko tey après sax bu ñu ko waxee ne yaa def lii moom daf koy jaaxal parce que gis na ne jam ba mu koy def àndut woon ak sagoom loolu c'est très important moo tax da ngay gis nit ñoo xamee ne sax parfois dañuy rey nit wala ñu jàkkaarloon di ko rey ne jamono ba ma koy rey damaa jàppoon ne ginaar laa doon rey wala bëy laa doon rey wala xar laa doon rey te alors que jamono jooju mi ngi tër nit di ko rey moo tax c'est important ci côté yooyu dafa am différence loolu rab rab la mooy jinne rek mooy jinne seytaane bi rek moo koy def loolu képp koo xam ne gis nga ne def na ko te teyu ko rek wala jamono jam koy def nga xam ne kii tàqalikoo naa ak sagawam rek jinne seytaane moo ko def defloo ko wala am na ci ñoo xam ne dañ leen di xabtal xaptal nag ba tey jinne seytaane la parce que nit ki saay suñ ko liggéeyee wala ñu xabtal ko rek dañ ko boole jinne seytaane moom moo koy defloo di ko dindiloo di ko defloo c'est très important euh, mooy mooy mooy li mhm. man dama yi nga xam ne euh, est-ce que mhm. parce que ñu ne piip élection yi dugg la rek fii ñaar ñi xeex ci jamono paaka ñii kii tëdd kii rajo koy reen yi lii nii ne élection yi am na ay sacrifice jaw fii ci Afrique laa la wax fii ci Afrique bépp élection wala bépp nguur boo fi gis ñi ci ëpp du ma ne ñëpp nag ñi ci ëpp la tànk ñuy toog ci nguur gi wala ñiy wut nguur dañuy sacrifice ba pare door a toog parce que dafa am loo xam dañ leen koy digal te nit yooyu nit àdduna nañ loo xam ne maanaam nguur da leen jaral lu ne bu ñu leen laajoon téeméeri personne moo xam ay nit yoo xam ne dañ naan leen soxla nañ temps de personnes yoo xam ne dañuy accident de dinañ ko def pour que ñoom ñu toog parce que ñoom xooluñ njariñu ñooñu wala xooluñ que ne lii léegi lii mën na ci mais jamono jooja la ñu bëgg rek lañ xool mooy toog ca photo yi président de la république parce que jamono jooju loolu rek lañ xool parce que dafa am ñoo xamee ne gis nañ pouvoir boobu ak nguur googu la mu leen jaral moo tax bu ñu leen reyloo woon junniy personne ñu xam ne bu ñu ko defee dinañ toog dañ koy def moo waral léeg-léeg nga gis ay élection yoo xamee ne dafay waaj a ñëw comme ni ma la ko doon waxee léegi cest à maanaam li nga wax lu am important lu am solo la saay su élection waaj am rek di nga dégg yoo xamee ne moo xam rey nañ puune bi wala dagg nañ nopp nit wala dagg nañ baaraamu nit ba ci tey boo xoolee ci li nga xamee ne moo amoon Kër Mbaye Fall ne sax Serigne Ba ko rey wala diw ak diw parce que loolu amu ci lu ma leer te gisuma tamit ba ko xew waaye loolu sacrifice la man sa Ahmadou Bamba Seye maa ko ko def dafa doon sacrifice te loolu la ca gën a jëm mooy ci wàllu mbiru élection man Bamba Seye man maa wax loolu te it la may wax xam naa ci lu leer naañ waaye du ma ne diw moo ko rey wala diw moo ko dugal ci otom wala diw moo ko dugal loolu xaw ma ci dara waaye daal man xam naa ne loolu sacrifice la xale yi noonu parce que niñ leen futtee bañ set dugal leen ci oto bi noonu ba pare seen suufu tànk yi ñu bënn ko seen omi aussi deret yi ñu ngacc ko loolu lu ñaaw la sax lu bon bon loo xamee ne jamono ja nga koy def xale bu ndaw xamee ne yaa ngi koy xool di ko def loolu àdduna répp jaraloo ko alal àdduna kese jaraloo ko wala nguur kese jaraloo wala ñu fay la alal te nga xam ne mooy puñitum àdduna bi loolu jaru ko mais loolu xeetu sacrifice bu ñaaw a ñaaw a ñaaw bu bon la boo xamee ne maanaam ka ko def sax euh, xamut xamut li muy def peut-être nag mën na am ci àdduna la mu doon wut waaye après bu deewee moom dina xam la mu doon def parce que nit ki moom xam kenn ku nekk gis nga li la yàlla wax ci alxuraan mooy boo reyee nit te tay ko ëllëg yowmal xiyaam da nga xamee ne sawar mooy sa kër te mbugalum yàlla ak rëbbum yàlla day wàcc sa kaw. Euh, maa ngi jël sa temps lu bari te xam naa fu mu nekk am léegi mhm. que moom waaw jaw euh, kaaraange mooy mooy lépp mooy jiitu parce que nit ki boo amul kaaraange amoo dara parce nit ki ñàkkum kaaraange mooy waral nitu guddi dëmm bëgg koo dugg jàpp ko solu ko bëgg def la mu def si moom def ko parce que nit ki yàlla dimbali na ko boole kook rawxaan man damay wax ne sax rawxaanu nit ki bu fekkee ne nit ki xam na rawxaanam sàmm rawxaanam fugloonte ak rawxaanam def li rawxaanam di bëgg topp ndigalu rawxaanam su boobaa jërut sax muy dem sëriñ naan ko ñaanal ma wàllu kaaraange mais dafay am ñoo xamee ne xamuñ lan mooy seen rawxaan xamuñ ba xam seen rawxaan lan la bëgg yan sarax la bëgg xamuñ ba xam seen rawxaan dafa jub wala dafa dëng wala lu bon la bëgg wala lu bon lu baax la bëgg alors que nit yooyu yëpp daf ko war a xam pour que mu mën a euh, def li nga xamee ne mooy bëgg-bëgg rawxaan su ko defee jiru sax muy dem di ñaan kaaraange mais nit ki su ko xasee ba yooyu yëpp romb su boobaa na dem wuti li nga xamee ne mooy wàllu kaaraange moo xam dangay ngay wut ndomba boo xam da koy takk pour am kaaraange moo xam da ngay loo xam ne pour am pour am kaaraange wala dangay defaraat sa rawxaan pour defa ko sarax yi mu bëgg wala nga def sa rawxaan li nga xam ne saa su nekk rek maanaam sa rawxaan dina dina li nga koy bëgg li nga koy euh, li mu di nga ko defal su boobaa di nga am kaaraange boo xamee ne ndax benn rawxaan moo ëpp junni jinne doole jaw moo tax nit ñi nañ fonk seen rawxaan yi baax a baax di xam seen sarax rawxaan di topp seen rawxaan ci liñ bëgg parce que boo ko defee rek saytaane ginneeg rab ak cat ak lu mat doon du la mënal dara moo tax kaaraange lu am solo am nañ ci nag lu ñuy liggéey loo xamee ne ba tey ci wàllu kaaraange la am nañ ci ndomba juróom-ñaari go boo xam ne deru gaynde am nañ ci yeneen xeet yoo xam ne dañ koy liggéey te it incha allah man Cheikh Ahmadou Bamba Seye képp ko xam ñëw na ci man ba ma liggéeyal la kaaraange noppi nga ñàkk kaaraange te it mbindeefu yàlla mënul ci yow dara ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaw waaw di nuyuwaat ñëpp di ziarewaat ñëpp di nuyu sama mbokk yi nekk ci bitim réew ak sama mbokki sénégalais yi nekk ci biir réew mi di ñaanal sëñ Muntaxa Basiru mu yàgg fi lool te wér samay waajur ak sama maam ja sëriñ Mbay Sey euh, di leen wax wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf